salaamaaleykum mbokk jullit yi sama mbokk sénégalais yi ñi nga xamante ni ñu ngi bëggee di ñu déglu saa su ne eh, di ñu wettaliku eh, di wettaliku di déglu sunuy waxtaan te xam ne sunuy waxtaan daf leen di jëriñ di leen yee ci anam yu nekk di leen bàyyiloo xel ci seen bopp di leen bàyyiloo xel ci seen eh, nekkin ci seen liggéey ci di leen xamal lu xamul woon di leen jàppale di leen gindi seen dundin bon nag daañu julli ci sangu-sang yi seydna muhammad salaa sallam di ñaan jàmm si sunu réew di ñaanal jàmm ci réew jullit yëpp ak fepp ci àdduna bi ñaanal ñu nekk ci prison yi yàlla génne leen si nu gën a gaawe ñu nekk ci opito mm, yeeg kër yi feebar yàlla saafara leen euh, seen jàngoro et aussi way dawli yàlla tabal leen àjjana firdawsi tey nag sama waxtaan maa ngi ko jëmle ci sukuraat ak ak ñaari dund yi nga xamante ni moom moo am mooy dund kaw suuf ak dund balzaq dundu ci kaw suuf nag mooy lii ñuy nekk li ñu nekk di yëngatu di dem di tellusi di gëm di julli gëm yàlla di julli di def di natt asaka di woor et cetera à dire li nga xamante ni moom moo nuy permettre ñu mën a defar sunu alaxira loolu mooy lii ñu nekk nii di dund ñu bàyyi ci xel bu baax parce que moom moo mën a defar ci kaw léegi nag mhm, euh, diggante ñaari dund yooyu dafa am lu xew dafa am benn yoon dafa am liñ naan euh, pom moom la ko nit yi di tuddee mooy souffrance bi ngay am booy booy génn àdduna am na ñoo xam seen souffrance day day day yàgg seen métitu dee dafay yàgg am ñoo xam seen métitu dee du yàgg loolu nag julit bu nekk doomu aadama bu nekk war na ci xalaat war na ci bàyyi xel parce que euh, traversé boobu métit boobu coono boobu euh, difficulté boobu dafa am lu nga xamante ni moo koy accompagner si foofu ngay xamee ndax am yow texe nga wala texewoo parce que yaa ngi gis àllaaxira di gis àdduna di gis séparation bi di gis ni fii nga nekk ci kaw suuf mënatoo fi def dara heure ba jeex na yaa ngi dem noonu ngay demee nag yaa ngi gis euh, sa sa ruux di génn si sa yaram mu nekk métit boo xamante ni kenn du ko nettali mënoo ko doo ko nettali parce que làmmiñ ba damm na cër yi damm na bët yi yaa ngi dégg di xam mais mënatoo yëngatu fekk nag yaram bi pare na ci àdduna yëngatu bi pare na ci àdduna loolu moo tax doomu aadama du feqatu mais doomu aadama day sedd waaw day sedd daal di eh, am bi daal di génn parce que eh, mawti buy ñëw ci doomu aadama da koy neutraliser ba pare noonu mu koy neutraliser danaan ka jeex na dund gi jeex na amatul benn seconde boo fi war a def da ngay dem moo tax muy téye gémminam sinon nit ci xelam doon na wax doon na wax di di ñuy xam ni dee am na dekki am na parce que nit dana toog ba si yàgg muy xalaat wéet naan est-ce que dekki am na parce que daf koy jaaxal mais loolu lu wér la lu nga xamante ni euh, yàlla moo ko bindee noonu moo bindee noonu doomu aadama moo am xel ba lu nekk da koy xalaat bu weetee ñu bàyyi xel ci loolu te loolu waruñu en euh, aucune façon euh, yóbbu ci ñàkk ngëm nañu góorgóorlu te xam ni euh, lépp lu nga xamante ni mooy àllaaxira bu baax mooy aljana bi ñuy yóotu ak lépp lu nga xamante ni mooy leeru bàmmeel ak mm, teraanga yi yàlla di dig doomu aadama yooyu yëpp ñu ngi ko mën a amee ci kaw suuf avant waxtu boobu avant jamono jooju nekk na nag jamono bo metti te nit yëpp nag niñ koy traversé niñ koy souffrir bokkul am ñoo xam seen souffrance boobu dina yàgg mooy sukuraat am ñoo xam seen souffrance boobu day day day gaaw am ñoo xam seconde la am ñoo xam minute la am ñoo xam ay heure la am ñoo xam ay ay ay la am na ñoo xamante ni parfois mën na nekk sax ay weer mooy ñi nga xamante ni dañuy daanu rek daal di nelaw mooy ñi nga xamante ñi nekk ay moor programmé mort mort cérébral fekk kër baa ngi dox yooyu nga xamante ni dootoo dund mais dañ lay sampal ay bagage rek ngay ngay noyyi te fekk na dundatoo waa ñu lay yëkkati teg di dugal ay ñam ak yooyu yooyu nag ñu ngi ñaan yal nañ ko yàlla soreel te yàlla may nu dund gu sell ak dee gu gu gu sell gu nga xamante ni dina sedd lool ba du am benn souffrance yàlla mën na ko te mën na koy defal ñëpp si àdduna mais nag li koy indi moom moo tax may wax li nga xamante ni moom mooy seddal dee mm, doomu aadama mi ngi ko amee ci biir dundam mooy mooy mu sàmm digganteem ak moroomam mu sàmm digganteem ak yàlla ci ni muy dundee muy xalaat a chaque fois ni lii may dund aha dund gu gu am mm, signalisation la mooy que lépp lu ma fi def dañ koy noter lépp lu ma fi def dafa may dafay wuyu si man mi ngi mel ne par exemple ngay dóor fenn rek sa yaram di yëngatu ngay dóor fu dëgër sa yaram di yëngatu bu yàggee après sa yaram day da koy yëg boo tëddee wala nga toog ba sa yaram sedd da ngay sentir ni sa yaram tas na c'est la même chose moo tax moment bi doomu aadama di dund dafa war a xool bu baax digganteem ak nit ñi ak digganteem ak boromam mooy que Mm, ci biir def lu baax cest à di sarxe di bokk ak doomu aadama yi am am di dimbali doomu aadama di yërëm di jàppale moomee ni di dimbali njërim yi di taxawu nit yi nekk ci jafe-jafe di éviter di jëw di éviter di wax lu ñaaw ci deru jàmbur di éviter di di di di yaakaar ni sax parfois sax da nga am ñoo dañ jël sëriñ sax teg ka yàlla technique yi moom mooy faj aajo yi te fekk yàlla mooy faj ajo yi yooyu point yooyu nga xamante ni doomu aadama da koy réere di dem ak moom ba mu indil ay musiba indil ko ay jafe-jafe yooyu nag la doomu aadama war a éviter comme ça mu mën ko leeralal bàmmeelam mën ko may sukuraat bu yomb sukuraat bu bu bu dal parce que nit ki li ngay liggéey rek moom ngay am man amila saalihan fali nafsi bakkan bu nekk rek li muy bu muy dund li muy def rek loolu lañ koy fay wala yàlla du juum du jaawale te jubam euh, dépassé na muy muy muy muy muy muy muy muy jaawale muy jaawale nga def lu baax mu lay fay lu bon lool moom mënul nekk bon nag euh, nañu bàyyi xel si sunu dund nañu bàyyi xel si sunuy relation ak nit yi te góor-góorlu xam ni hmm, àllaaxira ñu ngi koy liggéey ci kaw suuf te nañu gëm ni yàlla moo fi nekk yàlla mooy dimbali doomu aadama yi yàlla mooy gindi sunu dund gi te yàlla moo nekk ci lépp nit yi nag nañuy bàyyi aussi doomu aadama ak lu mu bon bon ak lu mu mënti mel nañuy bàyyi di wax ci daram parce que nit mën ngay wax ci deram fekk moo la gën nit ki mën na sax wax ma ni naan sàngara bàyyi na de wala wala tuxiyama wala leneen mais nit dinay def lu bon fekk dañ ko dañ ko al dañ ko yàqal wala dañ ko xaptal wala dafa dafa am lu ko dugg wala dafa am lu ko yàqal nga yaakaar ni nit bu bon la di wax ci moom lu ñaaw fekk moom moola gën ruux moo gën sell moo gën nekk innocent fekk na yow yaa ngi bàkkaar rek nekk ak di àq de ce fait moom muy mucc nga koy jox say yiw fekk na moom innocent la il n'a rien compris dafa am gàllankoor bu ko topp nga ci bàkkaar moo tax maandu baax nañuy maandu suñ diggante ñun nit yi nañuy maandu si nit nit boo ko gisee muy def lu bon bul ko condamné mais ñaanal ka pour mu def lu baax parce que yow xamoo yow ëllëg ndax yow doo ko yees ëllëg parce que dund gu sotteegul lu ne xaj na nañu bàyyi xel si doomu aadama yi nga xam ne dañ déborde ñu leen di ñaanal pour ñu delluwaat si raay bi te di leen dimbali di leen suturaal nañuy suturaalante tey jàppalante parce que suturaalante moom moo fi am te képp ku suturaal doomu aadama yàlla dina ko suturaal moment bi nga xamante ni soxla na sutura yal nañ yàlla yokk sutura te yàlla yokk nu dal yàlla yokk ñu jàppale ci wàllu sunu dunden yëpp ba duñ fi def lu ñaaw duñ fi wax lu ñaaw allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam caana amadu loolu incha allah ba suba ci yeneen waxtaan